ngi leen di sant yéen di leen sant di leen gërëm di sant waa Jaksaaw ñu nga xamante ne ñëw nañu ñu bokkoon ci mouvement bi di sant waa Kañak yi nga xamante ne ñoo ngi ci biir mouvement bi di sant waa Déni Géej central xamante ne foofu laa dëkk ak Déni Géej sud village Alsan Dia ñëpp ñëw nañ kenn ku ne am naa fa ku ma nekkal foofu vraiment sant nañu monsieur le maire Ndiagne parce que boo gisee mouvement bi taamu pour jë ànd ak Ndiagne parce que Ndiagne moo fi nekkal président Macky Sall mm-hmm. moom la Macky Sall tànn ndagam ñun ci Macky Sall lañ ci kon ci njañ lañuy andal moy suñu sunu ci ko aussi dafa am lu mu leen waxon ci sargal Issa waxon na leen man buma ande ak nit dekk bi yeb dinañ xam ne maa ngi ànd ak moom man non lay dox tay lepp leer na njañ lañ andal pour jàppale ko ci élection yi mouvement bi yëpp ci sa gannaaw la nekk maa ngi wax aussi mouvement bi bii nekk Jaksaaw nekk Kañak Déni central et Déni Géej seen carte euh, carte électeurs yi jëli leen ko bu wote jotee mouvement bi nag gagné secteur bu nekk maa di sant ñëpp di sant sama papi muy Aliou Sow ak sama papa abu di sant sama frère muy Seydou Sow ak euh, moodi di sant ñëpp manuma lim boo limee rek juum maa ngi sant lépp loolu rek laa amoon li ma doon wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi leen di nuyu kenn ku ci ne turam ak santam di dalal sama frère le grand responsable muy Amady Sow fii ci commune Bambilor Amady maa ngi lay nuyu bu baax mais di beral nuyoo sa wayjur muy sa papa mi la gunge ak say mag ak say xarit pour nga ñëw def sa déclaration fii ci commune Bambilor sa appartenance ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi xam ne suñu président de la république son excellence le président Macky Sall moy président ou coalition Benno Bokk Yakar. di nuyu bu baax toute la délégation bi nga xamne mom nga andal muy délégation bu mat délégation fu ci commune Bambilor gor wala jigen mak wala ndaw joge fa Anda ak yow ñu tàllal seeni tànk fii ci biir commune Bambilor pour ànd ak yow ñëw def déclaration bi donc Amady jërëjëf jërëjëf ndax ñëw nga fi nga war a ñëw du sama jëmma moo la intéressé mais jëmmi président Macky sàll moo la intéressé jëmmi président Macky Sall nag bu la intéressé nga dëkk ci commune Bambilor yaakaar naa bu njëñ tàllalee loxo ku ne war na del jël loxoom teg ci loxo njëñ pour ñu liggéey delloo ko président Macky Sall Amady le bon choix yow la le bon choix mooy bi nga tànnee la coalition Benno Bokk Yaakaar yàlla def ma jiite ko mais ànd ak président Macky Sall dëkk Déni Géej def ko wareef la wareef la wareef la wareef la li tax ma ne wareef la de notre naissance jusqu'en 2012 ma ne bi ñu juddoo wala mën nañ ne ba déeni géej sosoo ba 2012 2014 lépp luy développement am ci déeni géej muy bëgg-bëggu population wu déeni géej président Macky Sall moko fa def muy muy électricité qui était une demande forte des populations gouvernement bu ne jaar na gouvernement moko def muy le président Macky Sall kon ku jóg ànd ak mané ku deuk Déni sud Déni central kañak jagsaaw njaxiraat pël yaakaar naa boo jëlee sa bopp ko président Macky Sall la nga def muy ngënduuf la nga def war na la ndax président Macky Sall bi mu bari na si loo xam sunuy bëgg-bëgg la Manu ko wona am ci nguur yi fi jaar de Senghor à Abdou Diouf de Abdou Diouf à Abdoulaye Wade donc si nous arrivons à avoir ces nos besoins nous le devons au président Macky Sall. kon bu taxawale coalition bu tudd Benno Bokk yakar yow Amady nga ne candidat bi mu investir lay dem andali yakarna ken du lu nga def ko donc jërëjëf Amadou. mané wax ji bari na wax ji bari na mais ku nek xam nga kala man mané amadi dañu jom ci échéance te fi nu jom c'est à partir de la vision du président Macky Sall ndax une une référence filles la ci commune Bambilor avons une référence au Sénégal Nous avons une vision pour le développement de ce pays de 2012 à 2035 cette vision nous sommes prêts à accompagner nos populations pour accéder à cette vision qui est un développement de l'ensemble des territoires de ce pays Talalat la loxo lu bari di ko dégg lu tax ngay and ak ñeñ lu tax ngay and ak ñeñ mi jangul nangam ak nangam c'est pas ça c'est de voir ce que ñeñ est en train de faire est-ce que c'est la réalité et c'est la be... est-ce que c'est le besoin des Sénégalais c'est ça que nous devons regarder xëj dina amat yeneen ndaje yu ñu tok waxtaan préparer comment aller aux élections su dee bilan mo ñuy fal ñun falu nañu kérok ba ñu déposer suñu liste nous avons travaillé dans l'ensemble des villages ku mu neex nak bu jant bi sooyee nga na gisoo jant bi dañ koy nangul ku ne dañ koy nangul ku ne mais nous devons dire la vérité aux Sénégalais, aux populations de cette collectivité territoriale. La commune de Bambilor est née en 2011. tey fi ñu est gis amul kuy yeewu te du deug ñu wax commune Bambilor ñun ñoo yobbu tay commune ba famu ag. àgg et ko yobbu moy fa ke nit ñu bëggoon mu àgg fa c'est la vérité ku mu neex nak ku neex waxal la neex mais notre posture c'est une posture mais nous devons réfléchir nous tous en tant que citoyens et citoyennes de cette collectivité territoriale vous avez entendu partout que Ndiaye ne sera pas investi Ndiaye ne sera pas candidat de la coalition Benno et ce qu'ils l'ont dit c'est eux qui m'ont amené les dossiers de mon investiture. Quel paradoxe. fu vous dégg fa ko investir président Macky Sall fait ko candidat mais tay ñaw wax ba ñeneen dossier d'investiture et c'est le moment de dire la vérité aux populations de la commune de Bambelor. je dis que la selle de Bambelor a été détournée par le ministre des collectivités territoriales qui s'élève à 115 millions et qui me parle d'un arrêté, d'un, arrêté du redécoupage de 2021. Mané, je commune Bambilor Celle 2019 dafa am 225 millions. lan mooy sel. sel boo ko déggee mooy li ñuy wax patente dañ ko changer daf ko tudd ko sel ak Selvel. la valeur ajoutée ajoutée ak Selvel, VL la valeur locative valeur locative usine bu foncier bâti ba nga war a fay loola la celle wax sel VL mooy la valeur ajoutée bénéfice bi ngay am déclaration bi ngay def dañuy jël loolu def ko ci genn kees kees googu nag ñëpp ko luy collectivité territoriale da nga koy am da nga ciy am ndax dañ ko def ñetti guichet dafa am guichet boo xam ne équité territoriale la mooy ñëpp ciy tolloole ndax tey électricité bii kunun powal di produire courant bi muy produire courant boobu du waa commune Bambilor wala waa Kounoune wala waa Kër Ndiayloo waa Gorom wala waa Dén rek ñoo koy utiliser kon valeur ajoutée bénéfice bi mu fay am taxe yi mu war a fay ka dëkk Fongolimbi mi sax da cee war a am moo tax ci gis-gisu président Macky Sall mu ne nañu réformer la selle au lieu loolu benn collectivité territoriale bi usine bi rek ne di ko bénéficier non nañu ko jox seen nañ ko jël ci kees séddale ko collectivité territoriale yëpp. boo demee patente bi mu fay ko tax muy ciment nga dem ci den euh, mine d'or la même chose nous avons ko ñu jël 7 milliards de ko bi 7 milliards ko commune Bambilor ci 7 milliards yi amna millions muy l'arrêté de 2019. deux cent vingt cinq millions je pèse bien mes mots selu ren bi bi ñu nu indilee arrêté deux mille vingt dañu gis ne arrêté deux mille vingt bi ñun ñu ngi ci am cent un million Sangalkam am ci cent quinze millions te selu deux mille dix neuf Sangalkam ginnaaw douze millions yi yi nga xam ne ñëpp ñoo koy am équité territoriale muy douze millions. bokkul woon ci guichet stabilisation beneen guichet bi mu doon jox mooy degré de pauvreté wu collectivité territoriale yëpp biñ ko ciy jox ñu ngi ko ci jox huit million ak douze millions muy vingt millions dama bëgg ñu déglu ma bu baax ndax lu tax ma bëgg ngeen déglu ma loolu mu jël yóbbu ko Sangalkam mooy li ñu war a àggalee marché yi nga xam ne moom lañ lancé woon appel d'offre di budgétiser ko su ñu budget deux mille vingt et bi nous arrêté bi ma xool gis kam nek ci 115 millions 101 millions, je dama téléphone dama jël sama téléphone Oh, la directrice des collectivités territoriales ndax ñom ñoy de xaliss ministère des finances ñoy denc mais de bi la directrice des collectivités territoriales Si oye ko monsieur le maire nous avons je pèse bien mes mots nous avons la nouvelle configuration de la commune de Bambilor et de Sangalkam l'ANSD nous a donné des chiffres qui nous permettent que Sangalkam ne soit loolu moo arrête nga madame la directrice c'est une honte en tant que directrice vous m'avez donné lu ngeen arrêté en 2020 le redécoupage, c'est 2021. Arrêtez 2020 je ngeen le redécoupage je pèse bien mes mots Je ma sur mon téléphone j'ai appelé le secrétaire général du ministère le secrétaire général du ministère m'explique explique je te reviens monsieur le maire Bataille revenir au le 2 août ma bind courrier le ministre des collectivités territoriales wax ko la situation jusqu'à présent j'ai pas reçu de réponse est-ce que réellement du ma toog ak askan wi nit ñi gis ay chantier yu taxaw xamuñu lu tax mu taxaw te duma leen ko wax ku mus a gis Sangalkam jënd ay table banc wala di defar ay salle de classe moo tax fu ne mu fay taxaw naan abri provisoire waratu fee am abri na c'est l'argent de la commune de Bambilor qui l'a détourné moom le jóg di liguer sa commune pour avoir un électorat et ça c'est pas responsable je dis bien c'est pas responsable donc taille population de la commune de Bambilor nous devons souder nos mains bokk ndey le combat c'est un combat commun Nous, ñëpp ñoo ko pour que fi jom ëlëk yalla man ñu fa may ndam ba li ñu yaakar pour liggéeyal ko askan wi ñu mën ko liggéeyal askan wi donc je di lancer un appel soyons unis soyons unis et c'est dans les grands ensembles que nous allons régler les problèmes de la société aujourd'hui ñi taxaw de dañu bëgg commune Bambilor bi ñuy commune Bambilor Nous sommes dans l'arrondissement de Bambilor Nous ñoo doon taxaw commune de dem mais est-ce que nous mérito que fëgg seeni bunt di leen laaj seeni Cardante, di len wax na ñew leen ak pour nous la commune de Nous ñooñu ñu commune man je ne serai jamais un traître pourquoi je ne serai jamais un traître personne manul tax ma jaay commune de au détriment d'une seule personne et aujourd'hui fi ñu jëm Mané, à part la coalition Benno Bokk nous ñi ëpp ci liste yi fi

ba jaay commune Bambilor pour benen commune li xew bari na ku ne mu ngi taxaw di wax souf souf souf souf kan lañ fi jaay soufas bayam wala soufas yaayam nako wax nous devons nous devons être honnêtes et sincères avec nous-mêmes ku fi am souf yaa ko dagg ko jaay ak ku mu mënti don nag la commune n'a jamais pris un mètre carré de qui que ce soit pour en faire ce qu'il veut Personne ne peut nous dire ça. Et on nous traite de tous les noms d'oiseaux. Ça, c'est malhonnête. Manalen, à part cette collectivité, nous une commune, nous avons pris 6000 m2 pour défendre l'infrastructure infrastructure et nous faire ay impense bu la gendarmerie de sang de Bambilor Nous fay borom pour des utilités publiques Nous avons une famille, nous avons am job mais les réseaux sociaux yi bëgg tax lu na ngeen ça c'est irresponsable duñu wax nit que nous xamne ku duñu ko et nous dañuy défier ku manti doon commune notre victoire du lu nuy parce que ñi doon wax dinañ ko délégation spéciale non non bi di la la c'est des menteurs c'est des marionnettes de quelqu'un qui est là-bas Dylan Deflo, Dylan di pour uniquement ses intérêts divisés pour régner et aujourd'hui il les a lâchés Il a demandé qu'ils se réunissent pour trouver un seul et unique candidat mais c'était impossible pour qu'ils puissent le réussir Mané, Amadi, nous nañu am nous sommes commune bi buñ doon dee fi lañuy ñuy suul ndax ñun ay talibé cheikh lañu ñi di murit dañ leen di jël yóbbu Touba ñi di ñu yóbbu leen euh, euh, Yoof mais bu boobaa nun ñi noo leen di yóbbu kon lii mooy suñu moomeel ñun ñoo ko moom nous croyons à une personne muy le président Macky Sall sa vision gis-gisam pour Sénégal doy nañu yéen ñi toog fi yëpp avant ses investitures avant may nekk député en 2017 et c'est le président Macky qui m'a fait un député personne d'autre ne l'a revendiqué que moi. c'est pas vrai parce que tout le monde disait que il ne le sera pas il n'est même pas sur la liste et ils ont vu la liste sortir 27 e c'est moi ma numéro 27 sur la liste nationale pour le brouhaha qui le président Macky Sall dina bëgg benn mbir muy njariñu sénégalais yi man njañ ma ko koy xañ wala ma ciy opposé wu njañ dina taal dëkk bi njañ dina def nangam c'est pourquoi que je ne mérite pas ce que le président Macky Sall a fait de moi en me faisant maire en me faisant député ça je lui dois ça c'est pas du yaay du papa moo ma def député c'est lui qui me l'a fait kon le lu mu bëgg ci ko si jëkk tax c'est ma personne moo après la sortie du décret j'ai demandé d'organiser un grand rassemblement ici

mais kilifa googu am menti aujourd'hui amadi boo génnee dinañ la jënd naa la <laughs> ah oui c'est la c'est le slogan c'est man dama laa mën a jënd man xaw ma la bala yàllay teral dama faa dama ko fekk bi ngay jël di luye say oto di ànd ak mbooloo mi di ñëw dama kaw yëg dama laa dolli juróomi dërëm mais tu as une vision da gëm sa dëkk da nga gëm sa commune moo tax nga ne naa dem àndi te nga da gëm borom réew mi da nga gëm président Macky Sall moo tax nga ne naa dem àndi gi ak la coalition Benno Bokk Yaakaar coalition bi nag man mi maay kilifa gi je suis le mandataire li président séentu ci man ne na ma tàllalal say loxo oo ñëpp képp ku ma doon opposé wu te bokk ci parti bi oo naa la ne la ñëwal ñu bokk coalition bi ñi ma tontu tontu nañ ma ñi ma tontuwul tontuwuñu ma mais nag ku ci new jël naa sama téléphone personnel woolo na la ñëwal man lañu investir ñëwal ñu ànd ci coalition bi nga xam ne noo ko bokk gisuma kenn ñàkkuma nag ñu ma àndal boo gëstoo sa ginnaaw gis kii ah le grand fi nu jëm ragalunu fa donc Amady nangul naa la sa ñëw ci coalition benn Bokk Yaakaar Dina, la ci accompagner te lepp lo xalat xamal ni ni ki tay bés ni ki tay amul lenn lu coalition bi taxaw di waxtane au-delà de la coalition même du parti te joto sa invitation wala sa convocation parce que vous êtes entouré de jeunes cadres des intellectuels je peux citer ce gosse là Modi ta place est ici Modi et tu auras ta place inchallah dans cette collectivité donc jërëjëf xooloo say diplôme xooloo leen da nga gëm na doomu secteur bi nga bés bu jotee sa bés bu jotee di nga taxaw te du mais ta place c'est ici à nos côtés donc je tenais vraiment à te gërëm la sant la ni ko sa di wala sa et tant d'autres jeunes qui sont à mes côtés moi j'ai eu la chance d'avoir les meilleurs jeunes de ce pays à mes côtés ndaw yi nga xamne tax na ñuy wax ndaw bu dé teranga yalla jox na leen ko ngeen yéne ko nit ñi kon yalla na leen yalla fay partout boo duggee bàmmiloor fu né ndaw nga fo boko waxé ñu ne la ki kan ndawal njañ la ndawal njañ nak ndam rek sa amadi dina la doli ben kaddu yalla bindul nit buy and ak man ren ba to te wol dans le positif suñu jarbaat yeeg suñu doom yi na ci gannaaw tey tàccu ma gërëm leen bu baax yàlla boole leen ak kilifa nag kilifa nag kuy ànd ak moom da war a roy ci kilifa gi mel ni moom li tax ma wax loolu mooy fi nu jom ëllëg noo ko bokk nun ñëpp kon ma di leen ñaan nañ ko def ak ak dal cër bi pare na yàlla matale na ki ko mu ko war a jox jox na ko ko ba pare kon nanu ànd bokk ndey

bu añ yi jotee ñu andil ñu boole añ yi ku ne ku ne bool boobu bu la neex nga añ c'est que c'est que c'est cette doctrine c'est cette vision que nous devons avoir c'est ça la communauté ni mag ñi daan def bu tabaski jotee ñuy dem ci jàkk ji wala ci penc mi bu añ yi pare ku ne indi boolam añ teg ku la neex bool bu la neex nga lekke noonu laa bëggee nu campagne ko campagne bi di ñëw ndax mbokki kese lañu mais taxaw fi di yuuxu nit di xas nit ñi ko mën nañ ko def